salaam mbokk sa fam 7 TV na bisaat ñëpp di ñëw gën a changé ak tërëm gën a fas yéene tey bi tombé le jeudi 25 juillet dañ koy commencé foofu sa France ak club di Paris saint bi nga xam ne nag dugg nañu si course bi ngir nag xëccoo Nico Williams bu Atlético Bilbao ak club di FC Barcelone bi nga xam ne nag ñoo gënoon a ngir nag signé ko kon Paris pare nañ pour fay clause libératoire jour bi ngir nag yóbbu ko foofu sa France waaye nag Barcelone ñoom seen côté ñu ngi am yaakaar ba léegi ne dinañ signé kii di Nico Williams ndax Paris Saint-Germain ñu ngi waajal offre bu toll si 60 millions d'euros ak ay bonus kii di Idrissa Sabali bi nga xam ne nag mën naa jouer ak équipe nationale bu Sénégal ndax nag jamono ñu doon double nationalité la am muy bu France ak bu Sénégal jóge na Lens signé ak club bi di Strasbourg bi signé fa ñett atu contrat officiel doomu Sénégal bi di Abdoulaye Niakhate Ndiaye jóge na si club bi di Troyes ñëwale ko foofu sa foofu sa Angleterre Crystal Palace bu njëkk ak 1 million d'euros bonus ngir nag jëlee ko foofu sa Marseille Pep Guardiola mi nga xam ne nag kii di Kevin De Bruyne bi nga xam ne dañ koy tudd ci club bi dal Ittihad wala nag yeneen club foofu sa championnat Arabie Saoudite mi nga xam ne nag De Bruyne demul la Arabie Saoudite day des foofu sa Manchester City Manchester United dugg nañ ci course mi ngir nag mën a am kii di Youssouf Fofana ñu fàtte nag Youssouf Fofana déggoo nag Milan sa bu pare ci ñeentaatu contrat kon na la bëgg a te nag euh, fu toll nii Milan mu ngi si waxtaan ak Monaco waaye nag Manchester United dugg nañ si euh, dossier bi ngeen nag am joueur waxtaan ba déggoo am na si diggante Milan AC ak waaye nag fu toll nii Atlético ñoo defoon off pour joueur bi di kon na Pavlovic daak na off Atlético bi moom nag Milan la bëgg a kon na Milan mu ngi si waxtaan ak clubam di euh, Red Bull ñu dem foofu sa Espagne

léegi ñu ngi koy topp pour ko Nottingham Forest nekk foofu sa Angleterre ñoom tamit te bëgg nañoo signé xamee sa Rodriguez club bi di Como nekk foofu sa Italie dañoo bëgg recruter Arthur Melo bi nga xam ne Juventus Turin ñoo ko moom lépp mën na Youssouf Enesri jóge na si FC Séville day dem signé ak club bi di Fenerbahçe foofu sax championnat turc ñu ngi xayma transfert bi si 20 millions d'euros ñu jeexale ak Ilkay Gundogan bi nga xam ne fu mu toll mën naa jógee FC Barcelone ndax naka jot na offre bu jógee foofu sax championnat Qatar bu toll si ñetti atu contrat kon nag club bi daal sat nekk foofu sax championnat Qatar ñoo def offre pour Gundogan te bëgg nañ ko signé